donc ñun ñoo war a fexe ba képp ku bëgg a taal réew mi ñu téye sa loxo te ñii ñu jàkkaar lool li ñu bëgg mooy taal réew mi ndaxte il font de cette question là une question de vie ou de mort te du loolu Macky sàll pour parler du du mandat de la troisième candidature ñun ñëpp xam nañ ne amul il n'a pas droit une troisième candidature dégg naa sama xarit <laughs> mu def fi benn. benn argumentation tellement alambiquée que man mënuma comprendre sax finalement moom lan lan lay xalaatee troisième candidature u Macky Sall ci boppam amul benn juriste bu mën a taxaw juriste bu sérieux waxuma ay genre Robert Bourget yi bon sama sëriñ xam naa ni certainement du ko du ko défendre <laughs> mais un juriste sérieux waxuma un juriste sérieux rek quelqu'un qui réfléchit <laughs> moi je pas juriste même su fekkente ni chaque année daan naa def un semestre de droit je ne suis pas juriste mais kenn mënu la layal troisième candidature Macky Sall voilà quelqu'un boo xam ne man naa jël sax non juridiquement balaa ma ciy wax naa wax ci moralement moralement. peut-être parce que juridiquement vous ne serez pas à l'aise peut-être ma ma njëkkee ci juridiquement donc <laughs> juridiquement il n'a pas droit à une troisième candidature xam nga lu tax. Hmm. Macky Sall a été élu sous la constitution de 2001 les gens le répètent chaque fois ñu ngi koy ressasser duñu arrêté li xew 2016 du confection d'une nouvelle constitution c'est une révision constitutionnelle l'article 27 dont on parle qui dit que le mandat est de cinq ans nul n'a le droit de faire plus de deux mandats consécutifs cet article parle de mandat l'alinéa premier son rôle c'était de c'est de diminuer la durée parce que loolu la Macky Sall bëggoon du durée bi la doon dindi alinéa premier mais toujours mandat la wax Macky sàll su waree dem déposé ji candidature si par extraordinaire ñii pousse ko ba mu dem ne day déposé candidature am mu nar a wàccu li mu lekkoon bu demee conseil constitutionnel xam nga lan lañ koy laaj dañ koy laaj ay pièces def defe naa pièces yi c'est autour de neuf pièces parmi lesquelles la caution le parenage le certificat nationalité euh, le casier judiciaire ah quitus fiscal et cetera et cetera mm. lui c'est le président sortant on va lui la question combien de mandats avez-vous fait il va pas nous dire qu'il n'a fait qu'un seul mandat parce que de 2014 à de 2012 à 2019 mandat la wala du mille 2012 ba 2014 ba 2019 bu dul mandat lañ ñu wax lan la su fekkente ni dañu jàpp ne du mandat mais loolu lu ko gën a garaaw amul sax cela veut dire que pendant sept ans Macky Sall décision yu mu jël yëpp benn baaxu ci mandat xam nga mooy lan mooy sañ-sañu exercer pouvoir pendant une durée déterminée loolu mooy mandat mais su fekkente ni ñoom nee nañu loolu du mandat cela veut dire que pendant sept ans Macky Sall dafa nekk ci suñu bopp réew mi rek di jël ay décret yoo xam ne benn baaxu ci di jël ay di di di votelu ay loi yoo xam ne benn baaxu ci di jël ay décision yoo xam ne benn baaxu ci donc 2012 ba 2019 mandat la bu waxee ne way boobu mandat la ñu ne ko 2019 ba 2024 mandat la mu ne mandat la ñu ne ko kon boog sëñ bi jëlal say bagage teg fële munoo bokk. nga xalaat ne conseil constitutionnel noonu la nar un conseil constitutionnel normal laa la wax. Hmm. dans un pays normal. mais ce conseil constitutionnel là man day wóoluwuma ko ndaxte mosumaa gis conseil constitutionnel u Sénégal jël décision wala joxe avis boo xam ne c'est un avis contraire à la volonté du président la République. mosul hmm. am. si les listes de Yewwi Askan Wi. ah c'est mais les listes de Yewwi Askan Wi. les lors des locales. waaw liste Yewwi Askan Wi. waaw mais yow loolu c'était de la poudre jetée aux yeux des gens. oui mais de la parce que mais non bi ñu defee loolu. def leneen. lu gën a garaaw loolu. jël liste nationale. dindi ko sànni. loolu lu ko gën a garaaw dafa am ci ci ci ci ci décision conseil constitutionnel. ils ont reculé pour mieux sauter. musoo gis. te yow maa ngi wax rek nga ne ma ah, kon cela veut dire que donc c'est rare. c'est rare de conseil constitutionnel prendre une décision à l'encontre de de de de de de la volonté du président de conseil constitutionnel bi nga xam ne président de la République moo leen di nommer mënul a nekk un conseil constitutionnel impartial. tous les membres du conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République. non non sëñ bi maa ngi ñëw. ñaar ñi ci président de l'assemblée di proposer président day moo leen di nome su ko neexee du leen nome <laughs> alors dégg nga non xaaral ma terminer foofu. Uh-huh. ku la abali gët mais fu ko neex ngay xool. donc ñun mënuñoo taxaw di xaar président maa ngi dégg sama xarit ndeysaan sama moo grand le le le l'excellent Boubacar Camara maa ngi koy seetaan bërki dem bu mu naan match de football day am arbitre de touche. ak am arbitre central il a parfaitement raison l' arbitre central c' est le peuple le peuple à plusieurs reprises par référendum mais a montré que Macky Sall n'a pas droit à deux mandats en bi ñuy créé bi bi Ablaye Wade di wootee euh, bi bi muy wax c' pour limiter enfin entre autres questions yi Ablaye Wade di constitution 2001 jël en charge c' était la limitation des mandats n'oublions pas que 2018 parti socialiste dafa déverrouillé woon euh, disposition boobu 2018 ci seen lutte de clans yooyu entre rénovateur et refondateur si vous vous souvenez bien les gens ont dit bon léegi sax pour waa kër Tanor yi <laughs> bon léegi pour montrer que ne Tanor n'a pas d'ambition dañuy dañuy déverrouiller cette disposition là pour que Abdou Diouf la possibilité de se présenter même en 2007 loolu moo indi woon déverrouiller ah 98 ah, 98 lañ ko dindi non 98 dama juum c'était en 1998 dama juum ci date yi. donc pour léegi loolu noonu la ab Ablaye Wade delloo si en mille 2001. peuple bi le peuple sénégalais voté ko en 2016 le peuple sénégalais voté waat ne le mandat on nul ne peut nul ne peut plus de jëlal nuul boobu rek nul boobu lan la du pronom personnel indéfini jëlal nul boobu teg fa Macky Sall à la place de nul on met Macky Sall. Macky Sall n'a pas le droit de faire plus de deux mandats consécutifs un mandat peut être un mandat de cinq ans un mandat de sept ans un mandat de quatre ans ou un mandat de dix ans un mandat est un mandat Macky n'a droit à une troisième candidature. léegi Sare. oui on laisse nos nos amis. Euh, question yooyu nga ma posé woon de. rebondir waa. ci ah, ci ci li nga wax après yow nga nga nga tëj Mansour. Hmm. wala que est que amoo loo ci wax vous en phase avec man moom loolu man sama position sur la sur la troisième candidature du président man loolu c'est une position tranchée. Hmm. ak lu conseil constitutionnel mën a def man dama jàpp gëm ni président Macky Sall. Hmm. amul droit laajaat ñett yoon nguur gi. moo ko bind ci livre moo taxaw jàmmalaay ne président Abdoulaye Wade julli iid juróom ñaari kabar la kab euh, rakk bu njëkk bi juróom ñaar julli it ñaari bu njëkk bi rakk bu njëkk bi juróom ñaari kabar la mhm. rakk ñaareel bi juróomi kabar la 7 plus 5 égale 12 mandat même bu nekkee une minute c'est un mandat mais loolu mooy dëgg mais non yaa ma yaa ma wax ci juridiquement moralement parlant. Ah, ah moralement. moralement parlant. le président de la république n'est pas n'importe qui. le président la république doit être au-dessus de la mêlée c'est pas un citoyen. normal ne doit pas être un citoyen normal su fekkente ni nag waa APR bekk ak waa Benno Bokk Yaakaar ak yenn chroniqueur yu mel ni Amadou Diouf ñi dañ ko bëgg a pousser <laughs> pour moralement mu mu mu mu nekk mu mu mu la mu waxoon wax ko partout sur le perron de l'Élysée mm. au Burkina Faso mm. un peu partout dans le monde mu wax fa ni je ne vais pas briguer mm. une troisième candidature mu wax ko fa yemul ci wax ko def ko bind dans son livre wax ne sa mandat-ci sera le second et le dernier d'ailleurs un pléonasme enfin pléonasme xaw ma sax une expression superfétatoire parce que quand on parle de second c'est fini amul troisième amul mhm. bu waxee loolu nag léegi ba pare nag nit ñooñu bëgg koo jël boole ko histoire parce que histoire lañ ko nar a booleel Macky sàll histoire lañ la nar a booleel mhm. na nga xam ne ñii lay pousser pour nga am troisième candidature dañu lay pousser pour nga def loo xam ne ëllëg dañ la koy xasee te boo demee troisième candidature doo gagné dañ lay gagné. d'accord il vaut mieux ne pas ne pas vous présenter. amat